waaw suñu yaay dama bëri ay soppe. waaw waaw. nee ko nee ko soppe gi yàgg na jongo ma aka yàgg jongo ma. nee ko soppe gi yàgg na. xol bi daw na de. faar yi daw na xol bi daw na tàkk bi yàgg na xol bi daw na. kenn du moom ak a riif ak a gëm yi bëgg waaw dama kontaan nag parce que màggal naa màggal mais màggal ren bi mosuma ko màggal mbooloo bi ñu ñëwee sama dafa ma dépassé sama xol dafa sedd ay mag yu jëm fu ñu jógee fu ñu ñëw ay surprise laa bari daal ci mag yoo xam ne dafa sedd sama xol ma koy gërëmee yàlla di ko sant Serigne Touba ndax waaw xam màggal xas day alxuraan yi mooy priorité li ci des dañuy feet ndax màggal feet la soo wàccee kaamil jàng alxuraan xale yi kuréel su paree na nga bernde sañte may xaalis waaw ñu noonu la ñu màggal mais or du doy or boo amee deux cent kilos nga amul or ragal daal gën a pire nga ñëw lii commencement bi la rek sañ seegu ma kanam ñu gis non dama kontaan dama man damay murit judd ci weeru ci màgg ci bëgg sëñ Abdoulaat kii sëñ Abdoulaat moo ñu gën a boole man dama bëgg sëñ Abdoulaat mooy sama féete ndax fulla ak dëggu laa ko bëggee ma bëgg ko gëm ko te rëccu ma ci dara dama bëgg daal man su may wax sax dama yoon am xaal mënu ma wax kii dañoo bokk baay kii sama doom baay la sama mag la sama xarit la sama soppe la ñu nuroo lu bari ñun ñaar bokk jikko muy doomu nit ku baax sama xarit ma di ma seet di ma nemmeeku di ma yónnee ay teraanga fu mu toll mi ngi may yónnee teraanga jaara faam ndax bëgg guma bëgg loolu dafa rëcc man mu ne moom réeroon nag gindi nga ko moom nag li mu wax wax jooju jaaxal nit ñi parce que ne moom mooy cin yow yaay kubéer gi daf laa sant gërëm la. moom sant naa ko gërëm naa ko parce que nit ku baax la a yor a ba bëgg bëgg sama entourage bëgg sama yaay man Askia Touré ma ko sagal daf ma teral daf ma sagal daf ma sagal lu ma bëgg suba ba ngoon a ci loolu yombul kon lu ma bëgg woon dama ciy nekk waaw mooy sama xarit mooy sama wéttal mooy sama waxandoo mooy sa waaw moo tax ci ku weeru ci boobu dëgg la. ñu gis ne ñu gis ne sànq ba léegi mais lay tagg ñoo ngi tudd sa kii sa yaay sànq say kàddu nga ni dangaa bëgg sa yaay bis bu nga def visite mais man mais man sama yaay sama xarit la ba pare man nu ma mel sama yaay la ginnaaw bi yàlla wéyee nit ñaa ngi ci waajur yi man dama bëgg sama yaay parce que lii moo ma ko liggéeyal sama kër baay dama ko bëgg tur du lay am du nay mel tur lu yàlla yi defal nit rek la waaye man dama gërëm sama yaay pare muy sama xarit ma bëgg sama yaay dama ko bëgg dama ko yërëm ni mu màggatee nii suy jóg bu ma xëyee u ma ne ko yaay mag dafa metti dama koy yërëm daal dama bëgg sama yaay dama koy yërëm xam na ko bu ko dara méttee dama koy nëbbu parce que xam ne dama koy yërëm xam na loolu su ko dara méttee dinaa toog di ko jooy ba keroog muy wér waaw nit ñaa ngi rawante ci waajur yi nit ñaa ngi rawante ci waajur yi a feegudi dina bëri ay surprise parce que man màggal moom dinaa jàng alxuraan dinaa wàccee kaamil dinaa bernde dinaa sanc dinaa may xaalis. loolooy màggal démb la yaa ngi wax ne dañuy jox surprise bi surprise nag kañ lay génn. surprise yaa ngi ñëw ah surprise yaa suñ ko waxee dootu nekk surprise ba pare baat dafa diis tey dama socc. ak leen surprise yi kontaan naa ci yéen. dama koy jël 30 secondes waaw ki ma ko def kon tànn waaye ba pare de doxal ma dama bëgg image claire bu ñëw ci journal defal waaw suñu yaay dama bëri ay soppe waaw waaw mais mais ko soppe gi yàgg nga jong ma ak yàgg jong ma ko soppe gi yàgg na xol bi daw na de boo ko defee loo man Sëñ Tuubaa defal la loo mën boo ko defee ma man mu defal la la jox Cheikh Moustapha Boye sunu yaay Adja Ndeye Fall sëñ Tuba mooy defal nii sëñ Tuba nag moom la yiw sëñ Tuba waa kay léegi sëriñ bi laa defe ndigal nee na waaw waaw man yéen ñii caméraman yi ak ñi yor site internet bi dañoo bëgg ngeen ñëw fii tuuti jëlal ma alxuraan bi ndax nag waneel yàlla daa am solo de waneel yàlla xanaa bëgg leen avancé ñëw leen waneel yàlla waa presse bi waa presse bi man man presse laa ne teel na maa ñëw teel na maa ñëw ci xuraan bi ñëw leen yàlla yàlla na wane yàlla xaadimul xadim kon sëñ Moussa bismillah. miinu bàyyil am ndox nga naan man ñi fi am na lu moo def ba màgg mu woo Medina Tabax armal ga góor ñaar la ñëpp a armal man maa béykat ak man béykat jéeg baa ngi tubaarkàlla moo armal góor ñi maa koy. Thank you. la mu wax mooy dafa jàkkaarloog kaamilu alxuraan bi bañ mu tooy sëñ Tuubaa ni ko kitaabu rabbi kaamilu kuntu lahu walillaahi bi fekk te yàlla bi ku fekk ci sama biir pour mu tooy kon sëñ bi nee na alxuraan gërëm ko alxuraan gërëm ko lu ko teg nañ ko xam solo si wax mu doog a def sama suñu yëfi nit kon nag sëriñ bi mu jox Cheikh Moustapha Boye waaw mu bàyyi yaay Boye toog soxna Ndooy Faal ñu bàyyi ko mu toog bu ko defee nu door liggéey bi jàng alquran nun ñëpp ni amin kon nag sëriñ bi ñoom ñaar rek. mu jox Cheikh Moustapha Boye. waaw mu bàyyi Baye Boye toog soxna Ndoye Fall.